jàngat nga am si ñaari mi-temps yi ñu def parce que ces deux mi-temps assez différentes. bon il faut que ñu ñu ñu ñu jàngat ni euh, fi ñu toll ci compétition bi on est déjà qualifié même si c'est un match boo xam ni euh, bu fekkoon on était dos au mur je pense que ni ñu ko joué nii duñ ko joué noonu Aliou était était très clair dans son discours il avait dit que day def benn turnover parce que moi moi ce qui me plaît le plus dans cette équipe mooy que Abdoulaye se qui était convoqué tout le temps muy toog ci banc bi je pense que les derniers matchs du Sénégal mi ngi joué donc si on a Kalidou Koulibaly mu opté jël ko teg ko ci banc bi joué loo ko je pense que il pense à la relève mais la relève aussi ça va se faire progressivement et d'une façon intelligente on a joué une première période on a a marqué un but euh, le but égalisateur personne ne voyait venir hein, parce que nous n'avons pas été aussi ballottés par l'équipe béninoise on a bien attaqué on a on a on a peut-être été moins pimpant dans le dernier geste mais sur le plan défensif aussi i y a eu un bon comportement ici ajoute à cela que bon vous allez me dire que c'est toutes les nations qui sont dans cette situation euh, championnat yi dañoo dañoo jeex les joueurs sont épuisés fi ñu jógee bokkul suñu joueur bokkut ak ay joueurs beneen fi ñu jógee suñu joueur pratiquement la majeure partie ils sont dans des championnats yu metti leneen aussi mooy que buñ ko waxee bu ñu ko waxul on a deux matchs match boo xam ne buñ ñu dóoroon mille à 0 aussi qualifié nañ ba pare peut-être que on le jour par rapport ak le ranking mondial mais quoi qu'on puisse dire euh, <laughs> toujours aimerait jouer contre le Brésil mu yokk ci encore l'équipe avait des blessés il fallait gérer aussi l'effectif il y a déjà trois joueurs qui étaient blessés deux indisponibles ça veut dire que ces choix étaient encore limités je pense que Euh, ce match là. match bi amuñu dara luñ ci wax. on n'a pas perdu même si n'ont pas gagné n'ont pas perdu c'est plus c'est c'est le qui avait moom moo gënoon na soxla gagné bu demee bay def entrée gratis cela veut dire que bëggoon na gën a mettre la pression sur nos joueurs mais ils ont su gérer ça. Euh, am na fa action yoo xam bon je ne veux même pas parler des arbitres mais il y une action sur Ismaïla Sarr je pense que sur cette action c'est un penalty clair mais aller jouer ci benn atmosphère boo xam ni xaw na hostile tuuti vous parlez de du geste des Béninois il y a aussi Idrissa Gana Gueye qui a fait un très bon geste là-bas. donc la veille. je pense que dem ci seen CHU bi. offrir leen du du du matériel. ça aussi waaw wax nga dëgg coach ñi ñi ngi jéggalu ça aussi ce son des des des choses yoo xam te ne faw ñu koy wax. di ko mhm. di di ko di ko fësal. jëf ju rafet la bravo à bravo à Idrissa Gana Gueye. jëf ju rafet la. Mhm. maintenant on a joué contre le Bénin. attendons de voir comment l'équipe va se comporter contre le Brésil parce que ñun aussi comme il a dit Aliou l'a dit suñu mënee suñu bëggee natt suñu bopp suñu bëggee jauger suñu doole. Mhm. il faut ñu tase équipe mag yi. coach da nga bëgg a wax ne Brésil moo ëppoon importance benn. je n'ai pas dit ça j'ai dit euh, tout joueur bu ñu ko nee kaay nga joué ak ak kaa nga joué Brésil Brésil ngay dem fubal. alors